نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا internet sans limite TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal bu baax a baax amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu fas yéene dalal taalibe Cheikh na fas yéene feex séq ak moom waxtaan bu yaatu lépp loo xamante ni rek moom lay yëngu dinañ ci am ay leeral tey laalaali ci li nga xamante ni tamit moom moo di actualité réew mi mënul ñàkk waaye laataa loolu rek dañ koy daal di bàyyi mu nuyoog internet yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan taalibe Cheikh na ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalalaat bu baax a baax ci sans limite TV. anjubillah mina bisimilahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa sans limite naan leen bisimilah kër gi seen kër la maa ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi kilifa diine yi ma ci jiital sama wasila cheikh na ya naan ko ay dara loo dund doyul nuyu naa leen mbokki jullit yi ñu nekk biir réew ma bitim réew ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar jullit ak ku dul jullit di ñaanal sama yaay faal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool tam ànd ak bépp yaay di ñaanal sama papa foo mu tëdd yàlla na ko dàqal fi mu joge moom a kum fa fekk ak ku fa fekk bisimilah. macha allah ñoo ngi kontaan bu baax a baax ci dalal bi euh, wax leen rek ñi ngi jàkkaarloo ak taalibe na nekk voyante guérisseuse euh, moom lañ fas yéenee dalal tey nag waxtaan ak moom ci li nga xamante ni lépp ci lay yëngu euh, képp koo xamante ni rek soxla nga ay service am buñ demee ba ci biir waxtaan dinañ joxe li nga xamante ni moom mooy ay numéro téléphone ñu daal di doore waxtaan bi rek ak ci li ngay yëngu maanaam su ma nee li ngay yëngu wàllum seet seet tey ji nekk na loo xamante ni yaakaar naa lu lu lu doy waar la bu ma nee lu doy waar la ndax nit ñi dañ ko commencé weddi ndax naxe bi da cee bari leneen ak leneen tamit da cee bari ana lan nga ñuy wax ci loolu. waaw loolu moom boo ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu ndax olof Njaay dafa ni fa ndox daan taa ba tey boo demee fekk fa tepp tepp est-ce que dégg nga ma fa ndox ba tey boo demee fekk fa tepp tepp ñi yàlla jagleel jub ak xam-xam ñu ngi yor seen njub boof ci seen ngor yor seen xam-xam réew mi nag dafa tas kenn xàmmeetul kenn kenn xamatul lu nit mën ak lu nit mënul waaye bu fekkee yàlla may na la ngay jéem dëggu tey dëggal ci kàttanu yàlla ak yàlla bi lu nu weddi weddi weddi weddi yow dina am ñoo xamante ni yow dañ lay gëm ndaxte bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër <laughs> macha allah am na solo ana lan la euh, taalibe Cheikh na di seetee waaw taalibe Cheikh na dafay seete pétaaw taalibe Cheikh na dafay seetee carte taalibe seet na dafay seetee ndox taalibe Cheikh na da nekk fu la neex woo ko mu wax la li muy seetee boo ko mënee sa tur sa turu yaay incha allahu rabi mu seetal la taaliba cheikh na boo ñëwee toog rek te déglu ko mën na bañ a laal carte mën na bañ a laal mën na bañ laal ndox te wax la ne coow te doo ko dindi ci kattanu yàlla Mhm. macha allah am na solo ñu nekk ci jamono boo xamante ni eh, dañ naan eh, jamono bu métti la ndax boo day xool wutum liggéey lu métti la fi am ko tamit toog ca lu métti la waaye ñu ni taalibe Cheikh na am na ay eh, am na am am na yoo xamante ni bu la ko defalee wala tey jii ni mu jox la ko lépp loo xamante ni rek buntu liggéey la ba ci contrat CD yi mën nga koo am. ci kattanu yàlla yonent bi ndaxte suñu borom moo ñu fi wàcce wàcce fi ñaan ndax yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen sant leen ma ma dolli leen. te ñaan yàlla xaraamul xam nga lu araam triyaane nit ak def lu bon waaye ñaan yàlla araamul te man damay ñaan yàlla incha allahu rabbi képp ku ci am sa liggéey bëgg faa toog du xool ba xam ne liggéey bi gën na ci yow ci kàttanu yàlla ak yonent bi incha allah di nga fa toog ci kàttanu yàlla incha allah boo ñëwee contacté Talibe Cheikhna ba defal la lim lay defal bu soobee suñ borom di fa toog te di am contrat. incha allah. jëflante bi naka lay demee dalay seet si wala fu waay mënti nekk tamit mën ngeen jëflante. fu waay mënti fu nekk ci àdduna soo contacter taalibe Cheikh na su ngeen jëflante sa bagage dina la fa fekk. bu dee dañ koy teg ci GP dinañ ko teg ci GP bu dee biir dëkk bi la incha allah ba mënul ñëw nañ ko jox cag-cag mu indi la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ajo ba tey ñu daal di des ak jaaxle sénégalais yi surtout laa ko mën a woowee muy li nga xamante ni moom moo di mbirum kayit moo xam nga nekk fii bëgg koo dugal wala nga nekk bitim réew tamit bëgg dugal ay kayit pour ñibbisi fii mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni sénégalais yi dañ koy jànkonteel lu bari ah, te nee na am nga ci tawféex bu baax a baax a baax mën nga ñoo dikkal ci loolu tuuti. dama lay wax lenn dama lay wax ni la képp ku nekk bitim réew wala nga nekk ci biir réew mi nga bëgg a déposer ko contactel ma ma taalibe Cheikh na dama la koy assuré ci kattanu yàlla force da am boo déposé muy papier Europe muy papier biir réew mi muy embauchement travail muy leneen ak muy contrat indéterminé loolu xolal dama koy giñ musuñu ma dégg nag ma dogu parce que man sama lépp ci yàlla laa ko wékk te ba tey ci yàlla laa ko wékk dama ko giñ ci barke Cheikh na Cheikh Sadbou Abi mi ma yaakaar billaahi wallahi boo ko waxee yàlla ni dëgg la képp ku déposé boo contacté maman Talibé Cheikh na ku déposé gu laa wax de ma defal la li ma lay defal nga déposé dangay am. léegi ñi nga xam ne jotoon jotoon nañoo maa ngi ñëw ku jot a déposé ba pare. du ma la assuré mais dinaa la defal li ma lay defal su fekkee amuloo su ma la defalaatee nga dugalaat dangay am. xam nga gis nga loolu. Uh-huh. gis nga problème mu uh-huh. gis nga doomu aadama. warta tëgal ay mbagg. warta bàkku ndax lu am yàlla la. mais suñ borom dina la may may gi nga xamante ni am na fooy toll da ngay tëgal mbagg dangay ngay bàkku parce que suñ borom ci boppam moo bëgg damu est que dégg nga ma lool moo tax mu ne ñaan leen ma ma may leen sant leen ma ma dolli leen te sant yàlla bokk na ci tiitar ndax mënoo may sa bopp dara yàlla moo lay may kon bu la yàlla mayee nga tiitaru am naa droit tiitaru man am naa droit ni man képp koo xamante ni da nga bëgg a dugal kayit dugale goo boo ñëwee ma defal la incha allah da ngay am képp ku dugal ba pare su ma la defalee bu la rejeté bu ma la defalaatee da ngay am muy benn ndax loolu leer na kon baax na. leer na ba tey fa laay ak yow ndax ñi dugaloon ci jamono jamonoy euh, feebar bi Covid bi dafa bari lool ba tey jii nii ñu ngi bitim réew xam naa ci ñu bari ñoo xamante ni dañoo am jafe-jafe ndax kayit dugaloon ba léegi mënul fexe ba génn kon daal képp koo xamante ni rek jokkoo na ak yow aajoom boobu dina faju ci kattanu yàlla ak mbaaxam te damay ñëw ci wàllu kayit damay ñëw ci ñi nekk bitim réew gis nga fin d'année bi dina bëri ñoo xamante ni dañ seen contrat day jeex ñun la demal nga xaar. ndax yaa ngi dégg fin d'année bi dina bëri ñoo xam ne seen contrat day jeex ñu la xaar ñu dinañ la woo dootuñu la woo abadan daayi man ndappet boo jugul ci sa bopp néew ma ñëw leen ci taalibe Cheikh na de waaye képp ku am sëriñ boo wóolu dem fa mu ñaanal la pour nga def sa place sinon bu fekkee sa contrat dafa jeex nga war a renouveler ñun la dina la woo kenn du la woowaat lii man taalibe Cheikh na maa ko wax sama baat ni poto ndax yaa ngi may dégg gis nga ni may defee ci këyit noonu laay defee ci kaso am problème mu yoon ñu arrêté la te amuloo fa ñetti fan doo kenn du la jàllale. kenn du la defeere maanaam. kenn du la defeere képp damay preciser trois jours boo ko amagul mandat ñu arrêté la trois jours xam nga bu ñu la arrêté dañ lay téye 48 heures pour mën la defeere bala muy mat soo gisante taalibe Cheikh na billahi la ilaha illa huwa kenn la defeere mais nan nga mën a gisanteeg moom ci circonstance yooyu. say mbokk ñooy ñëw. ñoo ñuy ñëw nañ ma indaale sa peeru dàll. nga def ci liñ ciy def. ci kattanu yàlla ak mbaaxam. macha allah am na solo. incha allah incha allah. Mm. Uh, ba tey ci laaj rek ah jafe-jafe askan wi lenn bokk na ci yaakaar naa ñëpp sax jot nañ ci léegi ndax picc yi sax dañ koy sabe léegi muy feebar wi nga xamante ni moom moo di impuissance sexuelle maanaam wàllum góor a nekk jafe-jafe góor yaakaar naa uh, sëy yu bari fi mu toll nii neexatul góor ñu bari tey jii nii yëgatuñ tamit seen bopp ndax feebar boobu noonu ana ana ana ana yan kii nga indi ci lool noonu. yan yan impuissance impuissance ñëwee dama lay faj une semaine trois premiers jour yi ma lay jox sama garab da ngay commencé yëg sa bopp ci kàttanu yàlla mbaaxam bu dee judduwaale woo ko même bu dee da ngay fowee sa bopp ba mu dab la nga nga am impuissance maanaam doo yëg sa bopp wala ngay booy booy préparé pour dem ci jigéen rek pare wala sa awra ndaw di dellu ñëwal ma taalibi cheikh na am na garabam ci kattanu yàlla ak mbaaxam mama Talibe Cheikh na am na garabam bokk na ci lii ma yor ci sama loxo muy miracle augmente appareil génital masculin produit cent pour cent naturel est-ce que mën nga ñu dikkal tuuti ci ci ci pommade. waaw pommade bi mu ngi nii man maa ko liggéey. bio naturel sama loxo bopp. soo duggee sama compte TikTok posté naa fa photo yi bi ma koy liggéey. parce que nit ñi dañ doon werante naan mama Talibe Cheikh na est-ce que yaa koy liggéey est-ce que da ngay jënd di di tafaat coow li bari lool am naan. sama diw bi am na ñu koy jënd di xolli étiquette bi di tafaat yooyu ma ne leen nag sénégalais yeeg waa bitim réew ak waa àdduna wërngal këpp dig naa leen di naa leen woon fi may defaree samay diw ba keroog ba may defar samay diw damaa génne fi may defaree samay diw won leen fi may defaree samay diw am na nag lu ma leen woon ndax secret kenn du ko wane mais won naa leen ni leen Mama Tall bi Cheikh na mooy defar diw bi won naa leen ba won leen bi may sol po yi lu ne fàng kenn du ko jeex. composition diw diw bi lan ak lan lan la ba xam amul ay efe secondaire. à base de qualité la ak samay bagages yi bopp duma ko wax. mais amul effet secondaire képp ku ma ko jox ba amee effet secondaire woo ma téléphone baa nga waa ko ñëw sama kër man daw ma daayu ma. ndax yaa ngi may dégg maa ko liggéey sama loxo bopp. bio naturel à base de qualité ak ay plante naturelles da nga koy jël bii nii day augmenter sexe góor ci longueur ak largeur. te day tax booy ànd ak sa soxna doo gaaw a pare day yokk sa bànneex ndax yaa ngi may dégg bii ci loolu lay jëngu soo ko jëlee balaa pot bi di jeex incha allah bi di nga gis résultat su pot bi jeexee nga bëgg ni mu ni nga toll dangaa bëgg a yokk nga dolli. da ngay wàññi. <laughs> déet yaa ngi digle ñaari pot ndax da ngay wàññi. non parce que xam nga li tax. Mm-hmm. gis nga lii fu mu yem fa lay yem. du la may nanguwaat ko. te du la may di ko yokk. di wàññi. du la may ba pare nanguwaat ko mooy maanaam du la may ba pare di wàññi te bu la xasee ba yokk fa lay yem kon nag yow mi ko utiliser yaa xam na nga bëgg mu toll fa nga koy bàyyi yaa ngi koy dégg yaa xam ni nga bëgg mu toll fa nga koy bàyyi te bu dee góor soo koy jël da nga koy jël matin soir boo xëyee boo sangoo pare nga diw ci ba tooy bu guddee bu la neexee nga diw ci ànd ak sa soxna ci ngay gën a gisee résultat bi. boo diwee ba am la nga euh, euh, nuñ koy waxee tey sax li li nga bëgg doy li nga bëgg maanaam nga yamale ko fa waaw amul continuer boo continuer bu ëppee wàññi woo waaw waaw waaw de loolu yàlla dogal na ko parce que wax day leer préciser waaw waaw wax day leer parce que comme diw la neex naa neex naa yamale parce que yow mi diw rek yaa xam li nga bëgg boo diwee ba am li nga bëgg rek nga bàyyi waaw boo dee xeesal boo weexee am nga beneen produit boo war a jël boo liyee mooy loolu mm-hmm. sant suñ borom rek mu ngi nii daal yàlla may na ma ci jàmm maa koy yóbbu partout dans le monde te gisaguma ci mukk nag conséquence boo xamante ne neexuma mm-hmm. amoo ci retour bu négatif amoo ci retour bu négatif boo bëggee bu ma paree tegale may vocal ngay dégg macha allah am na solo waaye ba tey ci pommade bi rek defar nga tamit bu jigéen bi mm-hmm. maanaam bu yokk wen ak bu yokk ay fes mu mm-hmm. ñu tuddee ko miracle de fes hanche ak li nga xamante ni moom moo di poitrine parti intime waaw partie intime poitrine exactement pour soxna yi moom tamit détaillé ñu ci tuuti bi pour soxna yi la soo koy jël comme bii rek da ngay diw say ween mancé matin soir diw sa ginnaaw diw sa partie intime diw say ange mu développé ba toll ni la neex nga arrêté. traitement bi amul app. traitement bi amul app yow weex xoolal li nga bëgg bu la neex nga jël benn pot boo commencé développé ku nekk ak taay bi nga bëgg rek nga arrêté waaw bii moom ah barki démb lañ ma ci may dix neuf te ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Hmm? wallaahi waza. ci ak waaw waaw sant gis nga nit ki bul ni nangam amul danga naan nangam mënuma ko gis nga suñ borom ni mu sàkkee juróomi baaraam ñu noonu la sàkkee doomi aadama yam te gis nga xam-xam. <laughs> géej la tànk ci du ko tax a jeex. te suba soo xëyee da ngay gëstu ngir gën a xam surtout wàllu sungu fag reen waaw wàllu reen loolu xam-xam la boo xamante ni gëstu la mais xam-xam bi la yàlla di may tamit xam bi la yàlla di may la da koy boole nag ak lii ngay gëstu sungu feeg reen yi ak li nga xam ne moo baax ak moo bon nga utiliser ko jàppale ci jaam ñi suñu borom may la ndam am na solo lool Internet Sans Limites TV fàttali leen ñi ngi jàkkaarloo ak maman Talibé na nekk voyante guérisseuse dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci ñi amul liggéey ñi nga xamante ni dañuy dugal ay kayit mu taw génn tamit ak ñi nga xamante ni dañoo am ay jafe-jafe maanaam wàllum sëy impuissance sexuelle ba ci ñi nga xamante nii rek dañuy gaaw yëg seen bopp yooyu noonu yëpp yor na ci ay saafara waaye boo bëggee mbir mi gën a gaaw da nga koy daa ci woo ci numéro téléphone yi 78 295 62 85 77 994 52 77 110 19 37 wala ci 33 855 21 14 boo ko woowee ci ñeenti numéro yooyu yaakaar naa boo ko jotul ci benn bi ci des yëpp daa ko ci jot ngeen jokkoo bu baax a baax macha allah waxtaan bi am na solo waaye ñu dugg ak yow rek ba tey rek ci jàngoro yi. Euh, société bi sax laay wax ndax da ngay gis euh, jigéen boo xamante ni taxawaay bi day yàgg maanaam moo xam mu nekk ci biir néegu sëy euh, di fa sëy mënul fexe ba am takk ndeer moo xam tamit mu taxaw taxawaay bu yàgg mënul fexe ba am li nga xamante ni moom moo di borom kër ñu naan faru rab da ciy laxasoo leneen ak leneen da ciy raxasu ana lan nga ñuy wax ci loolu. waaw faru rab moom am na dëgg la jigéen ju toll ci sëy ba paase sëy sax bay yaakaar ni dootul sëyati ku ñëw dem lu mu yaakaar mu tas day nekk ak nit ba ci biir muy neex kooku jékki-jékki am lu ko yóbbu du xam lu ko yóbbu faru rab da koy def mais toogaay bi surtout toogaay bu yàgg bi dafa bëri ay choses yu koy def dëj da koy def waaw ndax mën nga tey am sa copain mu yaakaar la investir si yow lu ne dem ban la dama lay takk nga di ko sëyoguma mu wax wax nga di ko sëyoguma mu def loo xam ne bu dul moom du doon keneen su ko defee ñu naan daa am faru rab daal di daal di fekk du faru rab am na mais affaire bi dafa bëri conséquence yaa ngi dégg waaye loolu lépp bu fekkente ne da nga bëgg a sëy nga yàgg lool sëyuloo ku ñëw dem boo seet see mama taalibe cheikh na boo seet see mama taalibe cheikh na incha allahu rabbi trois mois du ko am ta amuloo jëkkër ci kàttanu yàlla ñetti weer. da nga joxe àpp maanaam. billaahi wallaahi ñetti weer. Mhm. du ko am ta amuloo borom kër. bu dee ki bëgg am doom. bu dee ki bëgg am doom dañ koy seet bu fekkee amuloo fibrom say trompes bouché wul dañ la ni munoo am doom seet nañ la dem nga ci hôpital ñu ne la ah ñun kat xamuñu la teree am doom te amoo fibrome say trompes bouché wul sa jëkkër seet na boppam ba xam ne mën na am doom soo ñëwee ma faj la est-ce que yën nga ni man maa ngi ci 17 turandoo maa ngi ci 17 turandoo am naa turandoo ba am turandoo bu weex taal booy wax ci écran da wax loo xam ne ku ko dégg danaan dëgg la maa di seet turandoo. loolu moom suñu borom may na ma ci. jagleel kattanam ak baaxam waaw. Mhm. macha allah am na solo eh, yan jàngoro tamit ngay faral di fajaat lu ëpp. waaw AVC boo ko amee buñ la jamee pusa yëg ko dama lay faj. incha allah rabbi lay faj ba nga dox man sama kër kenn du fi jàppee ku feebar di fi dugg. kenn ku feebar dugg ci kër gi kenn du ko def. boo feebaroon ba mënoo dox boo ñëwee ci buntu kër gi da ngay dox billahi wallahi watalahi soo feebaroon ba munoo dox ñu jàppoo la di la wàcce mhm. man kenn du jàppoo nit du ko dugal sama biir kër booy ñëw di dox waa àdduna dégg nañ ma booy ñëw di dox te boo weddee ma defal la micro trottoir ci ñi ma faj AVC lu ma dem de seen numéro laa lay jox yow nga dem ndax dégg nga ma xeetu feebar bu mu mënti doon lenn nag mooy sama jikko lu ma mënul faj du ma naan mënuma ko faj waaye lu ma mën a faj ci kàttanu yàlla nga ñëw ma ne la jàkk xam ne lii mën naa laa faj dama lay faj man damay faj sax en distance da ngay nekk bitim réew feebar wala fii ci biir mun mënoo ñëw appel vidéo dama lay faj fu waay mënti toll ci àdduna nga amee bopp bu metti boo ma woowee ma la teg sa ndey sa bopp nga teg ma mocc la mu deñ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loolu yàlla moo ma ko may ndax dégg nga ma loolu yàllaa ma ko may du kenn suñ boroom la kon dama ko ci sant macha allah balaa ñuy jeexal ñu laaj rek li nga xamante ni xew na ci réew mi maanaam dinañ ne actualité la du actualité ndax boo xoolee jamono bi jaxasoo na soxarante bi bëri na yàqante bi bëri na defante lu bon ak waxante lu ñaaw bari na gis nga politique bi élection yi ñu dëgmal nga xam moom mooy élection législative yi ah, ku nekk gis na li nga xamante ni moom moo ci commencé xew eh, yow en tant que koo xam ne day seet koo xamante ni day gis suñ borom may na la dara nga mën a dénkaane ay sarax pour askan wi def ko mucc ci yu bari ak accident yeeg yu bari lan nga ñuy euh, proposer bii paa ci ci ci ci ndong ndong xam nga dee moom yàllaa ko moom mhm. ku sa bis jot moom doo jaas waaye itam dafa am dee yoo xam ne nit ñi ñoo koy sabab nañu moytandiku réseaux sociaux yi tiktok yeeg instagram yeeg whatsapp yeeg sinap yi gis nga ñun ñi toog nii ci réseaux sociaux ñàkk pexe ak bëgg dimbali jaam ak tamit il faut ñu toog wax ak askan wi moo tax ñuy toog mais cat baaxul wax naa ko chaque jour defoon naa fi vidéo boo xam ne wër na àdduna ci TikTok. nuñ nuñ koy moytoo dañuy wàññi. poste esat yi poste bi nañ ko wàññi chaque jour ma wax ko wàññi xale yi nañ ko wàññi gis nga deewu ndaw gi ni mel nañu wàññi. iñaan beeg soxorante bi moom feebar la gis nga nit boo xasee ba iñaan feebar nga sa kiñaan googu moo lay lekk ba nga dee te xanaa xamuñu ni. yàlla noppi na démb tey door a ñëw nit ku nekk lam nar a am suñu borom bind na ko avant moo wàcc ci jamono kenn mënul jël warsagu kenn kenn mënul jël palaasu kenn kenn mënta jël bësu kenn kon nan leen yéenante jàmm li ma yéene sama bopp ma yéene la ko li nga yéene sa bopp nga yéene ma ko man taalibe Cheikh na de bu dee damaa yéene nit lu bon yal naa ci jiitu bu dee safaan la yal nañ ko bokk njaboot gépp samay njaboot lañu li ma yéene sama doom laa yéene doomu jàmbur yépp bu neexee yàlla li may wax du yegg te bu fekkee li may wax du dëgg ci yow yàlla bu ma gisee yonente bi yow man gis nga doomu aadama dangay ngay doylu wéral bëgg ñëpp yaatu bu ko defee sa wërsëg day yaatu dangay ngay dund dund mu neex waaye bu dee bu ma gisee taalibi Cheikh na tey mu toog ci réseaux sociaux bi ma ne naa ko xeex naa ko yàq waru fee mën a am dara est-ce que taalibi Cheikh na fa ko yàlla làq xam nga ko su ma la gisee ni naa la yàq naa la xeex boo est-ce que fa la yàlla làq xam naa ko est-ce que xam nga am na ñoo xam ne kenn du leen xaatim yënga lool am na ñoo xam ni kenn du leen bind am na ñoo xam ni kenn du leen maas am na ñoo xam ni kenn du leen sunguf kenn du leen reen nit ñu bëri ñu ngi fi nga gis ñu ñuy torox di yàqu xam nga lan moo ko waral dañoo liggéey dañoo laalaalaake dañoo liggéey ku ñu warul liggéey dañoo def lu ñu war a def ba ci ñun sëriñ yi dañoo war a moytu defal ma diw nangam muy lu bon ñu def ko parce que kooku xamoo lu ko ndayam bootee xamoo fu mu dugal boppam xamoo fu ko yàlla dëxëñ bu ñuy ñaan nañ ñaan ci lu baax problème yi bari na sëy yaa ngi tas ndaw yaa ngi dee xëy amatul dund bi metti na feebar bi bari na li nu war a mën a ñaan dafa bari te du doon lu bon kon nag yàlla ñu yàlla xiir ci boppam ci barke Seydina Muhammad yen waa sans limite maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal seen site bi yal na doon ay télé télé télé télé ci barke Seydina Mohamed naan leen nag beneen yoon ci beneen numéro ak sans limite ci kàttanu yàlla attention sans limite نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي